asalaamaaleykum euh, mbokki internet allo Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat jàmm euh, ci seen bile tey ñu ngi fi dalal ki nga xamante ne nii du ma ni bees la fi sax parce que yàgg nañ koo gis ci seen bi euh, mu doon koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci li muy wax muy am li muy wax nit ñi di si teg seen bët ak li muy wax tamit à chaque fois kenn du ko yóbbu li nga xamante ne nii moom la ñuy yóbbu góor yu baax yëpp muy di vaar lépp lañ man a wax ci émission bi. ñëw si directement si troisième mandat bi nga xamante ne nii mu ngi réew mi ak. Euh, troisième mandat bi man moom lii moom naa leen wax tey mu leer. acca Macky ak euh, kii Sonko ñoom ñaar ñëpp ñu demandoo à la fois. nga na Macky ak Sonko. révélation sur sur la RDV. ñu à la fois. duñ demandoo à la fois. bu kenn demee kenn toog wala ñoom ñaar ñoom ñàkk. maanaam ñoom ñaar bu ñu demandoowee. te waxoon naa ne. surprise dana am ba ma koy wax tey la neex ñu bëri di wax si parce que am na loo xam ne. nawet bi. ñëw na de. Eh, lamin ren. suñ as. dana yéex ndox mi. dina yéex a taw. ay bu tawee. bu tawee naataange. la ilaha illallah. ndox ren dana bëri waaye day yéex nag. day yéex tuuti. Mhm. ba nit ñi xaw a jaaxle. ay bu sottee Lamine. Lamine di nga ne Lamine lii bindal lii nga tenc li ma la wax nii bindal. sama carte baa ngi nii kay sëñ bi. lii moom na ma yàlla baal mais Mouhamadou Mokhtar saar moom rek moo ma ci doyoon pour couvrir ko jàllale ko ndax lii moom du dëgg du yoon waaw mu jot ñu ne maanaam assainissement bu Touba bi nangam ak nangam lu nekk ñu wax ko jàppal bàyyi ah te dara ba nii xoolal nit ñi mujj nañ oto yi di dox mi ngi nii fii ba kër sëñ Cheikh Ndigal ancien garage ah jàpp kër sëñ Moussa Kane dem ba vingt-huit yaa ngi premier taw premier inondation yaay taw gis nga ay célébrité yoo xam ne yu jigéen yu ñuy yu bëri mhm. gisaan naa ay góor média est-ce que bokk leen ci bëri ñu am jabar <laughs> média bi moom ñu bari nañu am jabar ah. mañang prépare leen média yu ñu bëri ren nañ am ay jabar maa ngi maa ngi waaj jël leen loolu jox naa ci média bi benn góor gu siw koo xam ne mhm. moo ngi ci youtube yi ñëpp xam nañ ko mhm. dana takk jabar jàpp leen bind leen mhm. yàggatul si biir 23 bi dina takk jabar yàggatul allo Sénégal waaj leen waaj leen góor goo xam ne dina am jabar koo xam ne mas am jabar mais ci biir réseau yi la ne beneen mooy waaw di nga gis kilifa koo xam ne feebaroon na dana tane fan di nga ko gis mu dëkkaat ci réew mi feebaroon na ab promoteur la woon bi décédé fan yi maa ko ah, bii moom dana am tuuti tànn waaye moom dana ñibbisiwaat nekkaat ci activité am alhamdulilah beneen mooy. Euh, jàngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ginnaaw ban ko gëjee dégg moom promoteuru labo bi di Gaston Mbengue nekk daal di. surprise dana am ci élection présidentielle wax naa ko deux ans avant. surprise dina am. bu rëy koo xam ne lu amoon 2012. waaw dana amaat surprise. kuy doon président du mos a doon président ci dundam mos doon président mooy doon président. ah kon kay Sonko mooy doon président réew ah, bu leen neexee ngeen wax Sonko mos doon président ba tey bu leen neexee man daal wax naa sànni bu li may wax bi nee. kon Macky Sall moom c'est sûr moom loolu moom ah, leer na. essentiel daal surprise moom dana am ci réew mi. ah surprise bi bu dikkee ci réew mi ñu bëri nañu teewal seen gémmiñ. parce ñuy daw ku ne di de waxoon naa la ko sa début année ba ay waaye la mi nañuy xoolaat vidéo yi parti buy tas gis naa mbër mu ñuy mu ñuy falaat mbër ay waay mbër bu baax boo xam ne bu dikkee ci biir làng ji ñu ci bëri nag bitim réew la ñuy jógee waaw dañ ñëw bokk ci élection yi lami naa la élection yii nii yow nii surprise bi ma ci am waaye Lamine dafa am loo ci gis. mooy ci élection yi. Lamine. suñu as loo gis ci élection yi. dafa lëndëm jamono jii ñu toll jëm fañ jëm. jëm 2024. dem na day jékki-jékki rek ñu wan mel élection yi dana am février la ñu wax ah. waaw ñu jékki-jékki ñu ne puus nañ ko man daal loolu jaaxal na ma. Euh, euh, euh, <laughs> dañuy jékki-jékki ñu wan la ni puus nañ. ñëw ñëpp dem ngay gis nit ñi di voté ñu ne ma puusaan nañ ko tuuti. man daal loolu lëndam na te bii di ñëw dinaa jox. lu moom xam naa ko moom ci élection yi moom. Ousmane. at at at at at moom kenn nay dem. kenn nay dem élection kenn nay dem ñaar mënuñoo demoon à la fois. la bisi waxati naa de. waaye kenn bu demee moom ba Lamine njëkkul nga koo wax. <laughs> tey nga dëggalaat ko ne ñoom ñaar kenn moo ciy dem élection. kenn nay dem kenn toog kuy gaañ nag. na leen ñaan ñëpp boole ci gouvernement bi. déet sëñ ko defee. Sénégal na mel ni tax li nga wax jëli naa ko de nee nga ñoom ñaar kenn nay dem. ba pare nga ni kii gagné na woo ñoom ñaar. na ñoo ñoo ñaar ñu guverne tey sëñ Barham moom moo nekk nii moom lañ jàkkaarlool sëñ bi ñu ngi leen euh, ñoo ngi leen di fay bu baax di wax ne allahumma sallallahu sayyidina muhammadin wa salim wa walaarifuna ila bi baabi waaxifu uduru xawman turon bi faydati gannaaw bañ santee yàlla julli ci yonant bi sant suñu sëriñ seex ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu ñu ngi wax ne jërëjëfe seex ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu jërëjëfee Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu jërëjëfee Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu xatmil wilayaat yu Muhammadiyya ba ma jaaree ci seex di sama sëriñ hmm. jaare naa fa nuyu kilifa diine yëpp di leen baalu àq bépp kilifa diine bu nekk ci Sénégal Cheikh Ass Barhama mu ngi lay baal àq di wax nga baal ko àq di baalu àq ñëpp ñoo xam ne ay mag lañ ci réew mi di baalu àq ñëpp ñoo xam ne ay ndaw lañ di baalu ak ñëpp ñoo xam ne jigéen lañ di baalu ak ñëpp ñoo xam ne góor lañ di ñaan yàlla képp koo xam ne ku nekk bitim réew la nekk fa di daan doole ngir sa njëriñu njaboot maa ngi lay ñaan yàlla yàlla na la defal sàkkuteef ku gën fa nga ne woon nga ñibbi si jàmm gis say njaboot ci salaam maa ngi ñaanal yàlla képp koo xam ne ku ne si prison yi yàlla maa ngi ñaan yàlla mu génne leen si fañ nekk mu muñ bañ def leen ñu fay jógee maa ngi ñaan yàlla nag yàlla dimbale Sénégal ba teraanga gi nga xam ne yàlla moo ko sotti ci xéewal muy jàmm ci Sénégal yal na mm-hmm. yàlla saxal jàmm jooju yal na yàlla may yàlla yàlla na yàlla yàlla may yàlla mm-hmm. naaju démb de wool fóotu tey mm-hmm. póotab tey mooy wool naaju tey wal yu maaseeg nit ñi jamono ñooy faj aajo nit ñi jaamu aajo as brameeg si na bisimilah waaw sëñ bi Euh, ñu gis ni defoon nga fi ay révélation révélation yoo xamante ni ni tey ah, nit ñi ñëpp ñu ngi dawaat comme ni ñuy dawee chaque fois rek di daw ci page yëpp muy Facebook ak yëpp di xoolaat sëñ Barham la mu waxoon naka nu mu demee tey gis nañu wax jooju kat waroowul ndaxte li ñu gis li ñu gis tey mooy surtout ci actualité bi nga xamante ne nii moo nekk faar ci biir réew mi ak li xew boobu ba léegi ñu ngi gis ni daal li nga waxoon dara deñu ci te tey ñi ngi jëmaat ci li nga xamante ne nii mooy euh, élection présidentielle. Mm-hmm. dégg nañ démb euh, président Macky Sall li mu wax. Mm-hmm. kàddu yi mu yëkkati moom dafa mel ni yow da nga koo gisoon wala nu mu demee noonu parce que ñun kat dañoo dañoo xamul. ñun dañoo xamul ni parce que dañoo ñëw rek yam ci information boo xamante ne nii tey suñu xel dafa daj directement sëñ as as barxam loolu ci wax ci loolu. maa ngi sant yàlla bu baax. di wax ne waa Allô Sénégal at waa àddina yu may seetaan. Euh, bàyyi leen xel ne li ma waxoon mu ngi taaje waxoon naa ne am na décision buy am décision bu amee dina am ñum neex am ñuy naqari loolu am na wala amul. waaw loolu de am na sëñ bi loolu de gis nañ ko. Euh, sëñ bi man yoruma zahir dama yor mhm. zahir at baatin. Mhm. te lépp loo xam ne li may def la ma koy gis làmbatuuma ko. li may gis ci réewu Sénégal dafa mel nii sama rëdd baaraam yii ni ma koy gisee. bu ma leeroon ne gis-gis bi yàlla may ma ma koy gis ci réew bi at àddina bi sama àjjana noonu la ma leeree dootuma julli. kon mbiru décision bi at mbiru mu am ci ci prise bi ba ma waxoon. quatre wala an en arrière tey jii histoire retiendra yàlla may na ma dëgg ci kaw yi ma naan yàlla du ma gis gis sama bopp. Macky Sall nag. dafa am benn français bu wax ne la nombre des obstacles franchis mmh. beaucoup plus éclatantes les victoires la grandeur des obstacles précise rendent beaucoup éclat les victoires mhm. kon Macky Sall tey lii mu def tey dafa def obstacle bu doy mooy loo xam ne yow nga taxaw auparavant ne damaa bëgg réew mhm. ñu jox la réew ñu dawal tuuti ci réew mi amagoo sax deuxième mandat ñu commencé di teg sur la sur la table problème mandat deuxième. Mhm. te jotagoo deuxième mandat. Mhm. si histoire du Sénégal premier président la république bu am loolu moom la. mu doon président boo xam ne gouvernement bu mu doon gouverner dafa bëri obstacle. Ah. te wax dëgg yàlla nag dafa am benn mbir mu ma feeñal bu doy waar te président Obama waxoon ko président Obama dafa tolloon ci jamono doon def ay tournée ba yàlla def ko mu yegg Ghana. ba mu yeggee gana moom président Obama dafa waxoon ne l' Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mmh. mais l' a, de, a besoin d'institutions fortes waaw loolu yàgg nañ ko wax tey jii wax dëgg yàlla Macky Sall lii mu def wax fa dëgg neex yàlla dindi na waxu Obama boobu teg loo xam ne tey ci histoire Afrique ci histoire àddina bi même les occidentaux Europe partout dans le monde ñëpp ngi wax ci obstacle bi Macky Sall def le 3 juillet 2023 Macky Sall def na tey wan na nit ñi ne c'est un homme fort Macky Sall c'est une institution très fort tey loolu yàlla def mu def ko dama bëgg Sénégalais yëpp ñu tàccu. xam ne bu ko neexoon forcé ndax ba mu nekkee ci auparavant ci mbir yi dafa waxoon ne may leen ma ñu ñu ñu ñu song ko ne ko waxal ci mandat mu ne du ma wax ci mandaa bi. Mm-hmm. ndax damay liggéey. loolu day wane grandeur am te quand on dirige un pays on est à la tête d'un état di république où on ne peut pas céder à tous les vents te dafa am mm-hmm. ngelaw mm-hmm. ak jalaal yoo xam day am ci diggante doomu aadama mm-hmm. ak ñum ñum diriger diriger Sénégal moo gën a métti ci diriger ci àddina bi parce que Sénégal dafa bëri ay nit ñu am compétent ay borom xam-xam moo tax vent yi ak tempête yëpp dafa dikkaloon Macky Sall moom mu taxaw ci booram rek di liggéey liggéeyam tey jii mu mënoon taxaw wax ne yoon may na ko mu posé waat candidature am mhm. tey mu def grandeur bi mu def def décision bu haute portée bi mondiale internationale une décision de haute portée historique vraiment Macky Sall c'est un homme c'est démocrate Macky Sall war nañ ko sargal ñun mhm. sénégalais yi parce que wax dëgg yàlla ñun waxuñ pour personnage Macky Sall mhm. moom président Macky Sall mais dañoo xool ci personnage u xam-xam ndax xam-xam. ñun la ñuy topp te boo xoolee tey bind na histoire ci benn bi ang maanaam angle anglais bi doo xam ne. dootul effacé ba àddina tuuti. Mhm. xale boobu dootul fay ba pénc bi yàlla Macky Sall bokk na ci histoire nit ñu nga xam ne ay nit ñu compétent woon ci àddina bi ku si tey ñu naan Charles Martin Martin kooku. Mhm. Euh, ku bindoon histoire la bàyyi ko fi. général de Gaulle di 16 juin. Mhm. bindoon histoire bàyyi ko fi Nelson Mandela. ku bindoon histoire bàyyi ko tey Macky Sall bokk na ci héros yi nga xam ne tey addina bi ñëpp war nañ jóg taxaw ma ñaan yàlla ñu ñëpp ñu jóg taxaw màggal Macky sàll mhm. ci jëf ji rafet ji mu def mhm. képp ku nekk si sa kër na nga nuyu sa morom ci jëf ji Macky Sall def tey jii muy jëf ju mag joo xam ne ñun borom xam-xam yëpp salué nañ ko bu ko neexoon tey mhm. Macky Sall jóg forcé mbir mi parce que ñu bëri tuuru bu ko neexoon tey mu jóg jël décision constitutionnel génnee mu forcé ay bakkan tuuru bëgg Sénégal moo tax mu bind livre wax ne man Sénégal sama biir xol laa ko def tey kooku noonu tey. bu defee jëf ju rëy ji àddina yëpp di ko waxtaanee wax dëgg yàlla lu ñu war a saluer la jërëjëf. sëñ bi ginnaaw bi ñu la déggee nga wax ci Macky Sall wax ju am solo sax ju ñëpp ci saluer parce que xam naa ni jug bi nga jug ñun ñëpp jug nañ ko Sénégal gi yëpp jug nañ ko démb sax am na ñu jugoon génnoon doon doon doon doon wane seen mbégte ci acte boobu nga xamante ni moom moom mi le président de la république euh, teg na ko. mais ci acte yooyu nga xamante ni président de la république da koy teg des na parce que bokk na ci ki nga xamante ni waxoon nga fi ay waxam muy Ousmane Sonko tey lan lan la Macky Sall suppose bu doon yow tey Macky Sall lan nga koy conseiller lan nga koy wax pour mu mu jëflante ko ak ki nga xamante ne nii mooy euh, Ousmane Sonko ndax bu ñu xoolee réew mi nu mu doxee ak bakkan yi yëpp yëpp yëpp tey Macky Sall tey li mu def nii lu mu lu war lu mu warloo woon ak sénégalais yi la d'après li nga xamante ni yëpp xew na fi te lan nga ñuy wax ci côté euh, Macky Sall ak tey Sonko mi nekk euh, kaso ba léegi. alxuraan mooy wax ne kullu yawmin huwa fii sixnin benn euh, nitu yàlla bu mag Sénégal di wax ne aw jënd ni ak xan li jëbëri kasiri fa inn nii wakkirlu sirri sirri yàlla dafa ma amal ma ñëw pour daj damm damm nit ñi damm di loxo du tànk du bopp mais xool yi jaamu aadama yi nga xam ne dañoo réer nga gindi la loolu dafa am ci zahir am ci baatin y a un proverbe phrase qui qui dit on ne cueille on ne cueille aucun fruit à la réussite sur l'arbre du repas te yaaram on se dit la vérité quoi. si. Macky Sall il a il a les esprits. Mhm. Macky Sall euh, euh, élever les esprits. Mhm. il a les cœurs. Mhm. kon aw jotani ak kan. li jabari kasari boobu. kër kilifa gu mag di wax. Macky Sall tey def na loolu. parce que Macky Sall il charmé les esprits la a les esprits il a les cœurs. te boo xoolee l'histoire est comme un. jardin l'histoire c'est comme le jardin si ne peut si ne peut pas respirer dans le jardin mmh. non n'entre pas dans le jardin maître ne n'entre pas dans le jardin parce que euh, Macky Sall a entré dans le jardin il a respiré dans le jardin loolu nag boo xoolee ni muy demee at ni mu ni mu doxalee mbir yi boo koy xool lu baax di ko di ko di ko di ko di ko di ko soytu dafa doon grandeur boo xam ne Mhm. te tubaab mooy wax naan Dieu a créé l'être humain en mettant beaucoup d'obstacles l'être humain ne peut pas sauter son destin tey loolu nga gis ne moom la def lu bëri ci àddina bi ci obstacle yi France yi rend na éclat bu rëy ci Sénégal ba nga xam ne Sénégal tey ñu bëri ñoo ko doon xool ci jéya mhm. Macky Sall tey dindi la loolu réponse na bu am solo boo xam ne mhm. moom la véhiculé te maa yàlla tey noonu mu amee grandeur boobu ba taxaw ne même bu fekkee jox nañ ma ko du ma bokk ci troisième mandat na amaat grandeur boobu pour continuer mission bi nga xam ne moom mbiram yi àddina wërngal këpp kenn dootul fàtte histoire am ndax wax dëgg yàlla nag ku baax mu waxale dëgg histoire bii Macky Sall réussir Sénégal benn om d'état ci Sénégal mos ko réussir dëgg la benn homme d'état mos lu ko waral nag mooy kon il faut ñu góor góorgóorlu ut ay récompense yu ñu defal président Macky Sall li tax max loolu mooy boo xoolee Macky Sall lépp loo xam ne luñ ko mën a maanaam rapproché fu mu toll nii mooy di ko ñaanal yàlla yàlla dimbale ko yàlla aar ko yàlla suturaal ko. Mm-hmm. yàlla defal ko nam loo xam ne ëllëg. Mm-hmm. Macky Sall dana doon koo xam ne ñëpp danañ ko bàyyi xel. Mm-hmm. comme ni ko àddina bi di bàyyi xel te boo xoolee loolu noonu moo dikk ci décision bi xam ne moo am ci àddina bi kon ñu ngi ñaan yàlla noonu mu jëlee mbir mi def ko mu doon loo xam ne grandeur la ba àddina bi yëpp di ko roy na jëlaat loolu rek. porte ko muy porte bu am solo ci wàllu dundam continue mission boobu ba képp koo xam ne mën na la jàppale dimbale la ci ci wàllu dooleem rek Macky Sall dimbale la ci côté boobu jërëjëf. waaw euh, sëñ bi. sëñ bi ginnaaw bi ñu la bi ñu la dégloo nga wax ci Macky Sall mais question bi nga xamante ni dañ la ko posé defe naa ni euh, moo doon moo doonoon tey euh, diggante maanaam Sonko Sonko bi nga xamante ne ni tey gis nañ ko euh, ñu ñu barricade di këram maanaam ñu ñu ñu ñu teg ko ci këram mënta mun mënta def dara. tey gisoo ni Macky Sall tey mu gënoon a rafetal maanaam nekkin bi ak rafetal tamit demin deminam est-ce que loolu noonu warul warul war a mën a ñàkk instant bi guddi ñu toll comme que dem na ba dindi ni wax ni defatul troisième mandat est-ce que mënul bàyyi tamit ki nga xamante ne nii mooy opposant bi nga xamante ni sénégalais yëpp may nañ ko bopp mu mu mu doon président mu doon kii mu déposé euh, candidature am en tout cas daal lenn moom dinaa leen ko wax mhm. te waxoon naa leen ne après Tabaski décision dina waxoon naa leen ne surprise dana am ci élection présidentielle te ku masta doon président la république du Sénégal moo ne président de la république. la. ah ñu ngi kanam. bu demee hmm. loolu noonu nu ma leeree. nu ma sama rëdd baaraam yi leeree noonu la ma président la république président la république du Sénégal. Hmm. man xam naa kan la. Hmm. bu jegee dinaa tudd turam. kon est-ce que Idrissa Seck sëñ bi turam. ñoo ñëpp ay homme d'état lañ mais fu mu nii. li leer ba leer daal mooy ci destin lañ ne parce que l'écriture c'est un acte. de prix mutation. Les paroles s'envolent, mais les écritures restent. man nit koo xam ne laa. mais mais gisoo sëñ bi gisoo damay bind wala tuuti ñu gis. sëñ bi gisoo ni gisoo ni gisoo ni Idrissa Seck tey acte yi nga wax noonu. ak hmm. esprit boobu nga wax mi ngi ci moom. parce que Idrissa Seck tamit bëggoon na fee nekk président la république. nañ ko bàyyi xel. Hmm. te xam ne surprise bi may wax. Mhm. di bokk na ci ñi nga xam ne. Mm. mosu ñoo doon président. Ah. Sonko bokk na ci ñi nga xam ne. Uh-huh. mosu doon président la république. Uh-huh. Euh, Bougane bokk na ci ñi nga xam ne. Mm-hmm. mosu ñu doon président la république. Mm. ñoo ñëpp boole leen ci biir. kon daal ñoom ñett demee ba jege daal. Mm. wax leen diw kon ñoom ñett moom c'est fort possible que ni kenn génn si waxoon naa fii. ma ki toog ku sant euh, trop A at D. at mooy Amadou Ba laa doon wax Abdoulaye Ba laa doon jàll. des na keneen koo xam ne. mu ngi nekk jolof mhm. ab jolof jolof boo xam ne mhm. bàyyi leen ko xel bàyyi leen xel Idrissa Seck mhm. bàyyi leen xel Déthié Fall gis nga ki war a nekk président de la république Sénégal mu ngi fii ci Sénégal actuellement nii di lekk di naan di def comme sénégal yi tabaski na rey na xarab tabaski këram mu ngi lekk mu ngi naan mu ngi xappi parce que boo xoolee latin yi ñooy wax naan maanaam tout temps maanaa latin wax loolu parce que euh, quand on écrit un li litre lay am li nga xam ne mooy équivalent mhm. ak sa kàddu man du ma magum xamoon naa ko man magum waxoon naa la ko te man sama wax bind la mhm. sama jëf bind la dëgg la moo waxee damay bind mhm. ñiy déglu déglu buñ xëyee ñu xëy kon kon kon kon Sonko moom du bokk parce que l'écriture est un acte de prime méditation les paroles s'envolent dans les écritures restent les paroles aussi restent kon nag li ma wóor tawoo daal mooy kuy doon président de la république daal. Mhm. surprise bu rëy rëy rëy rëy fii si réew mi dañ te li ma leen waxoon nag buñ xoolee action bi am nii tey ci Macky. Mhm. wax fa dëkk neex yàlla nag war nañ xam ne histoire retiendra xam nañ ne li ma doon wax te am na. amul ci histoire Sénégal. Mhm. benn maaraabu bu ko jàppee plus des années di ko wax. Mm-hmm. ba fii mu toll ba ñëpp topp ci ginnaam di ko wax si prise bi c'est le seul marabout ko ma sax si àddina bi si Sénégal gii mm-hmm. te ba ma ko dalee wax kenn toon ne lii dana am mm-hmm. te ba ma ba ma koy wax TFM maag Zozo di ko wax ba moom mën naa ma sax yaakaar naa Macky Sall doon président de la République ko mais moon wax loo xam day tas parti mais lii gisoon naa ko sëñ bi kon daal kon gis si réew mi moo da wax uh-huh. moo gën ci lu ma denc dëgg la président de la République du Sénégal xam naa na la tudd xam naa fan la dëkk te heure buñ jegee ni ma sama rëdd baaraam yi maanaam leere nii mhm. noonu laay taxawee wax na mhm. mhm. kon kon buñ buñ la déggee sëñ bi buñ la déggee surprise la président bi a ba mais Sonko moom du surprise moom bu doonee président moom du surprise ah en tout cas daal man yow ah, moom moom da du surprise rek parce que moom déjà nit ñëpp euh, may nañ ko nopp ne ñëpp jàpp nañ ñi moom ah, war na mën a doon président li ma wax moom ko doonee du président li ma wax daal moom am na te incha allahu rabbi euh, dama neetul Sénégal koo xam ne dama naan nàngam man damay wax yàlla mhm. appliqué ijaaba boo ko déggee baat bi mhm. loo wax avant nga koy wax sax yàlla nanga ko sëñ ma ne mhm. man lu ma dégg sama nopp mu faju lu ma xool mu faju lu ma wax mu am dégg la àddina bi wërngal këpp amatul mbindeef walla kuy dox naara yeeg ñag yeeg maanaam chinois yi japonais yëpp daw nañ dugg ci làng ji wala amul kenn ku réeréer mbir ne Ass Barhama day wax muy am. dëgg la wax muy jëf day dégg muy faju loolu moom àddina bi yëpp xam nañ ko jërëjëf. dégg la léegi léegi tey euh, bu ñu gisee doxalin bi nga xamante ni moom la réew mi di doxee. Ah. ak président bi euh, bokkatul instant bi nii. Mm-hmm. tey ñi faroon ci moom rawatina ki nga xamante ne nii moo fi causé woon problème yu bari mi Adji Sarr. tey mm. tey moom euh, ay ay njëlbeenam dina dina xaw a yéeme trop sëñ bi bu nekkee ci réew mi. en tout cas daal moo tax àddina. Mm-hmm. Euh, dafa am lu am solo loo xam ne olof da koy wax kuli yàgg na at jaaloo kuli olof moo ne kuli yàgg na at jaaloo histoire u Sénégal képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réew mi te xam ni réew di doxee war ngaa xam ne histoire u Sénégal at coow ñoo ànd waaye nag bu la dara jaral si àddina nga tayle sa sa sa si ay affaire politique dëgg la ëllëg moo tax. Mhm. say sët at say doom. parce que ñoom ñooñ tey ngay gis yu mel ni lu féewloo ëllëg mën nañ dem ba bés ñu àndaat. Mhm. wala yow boo ci duggoon après nooy def. Mhm. problème bi ci yow lay nekk at say doom te gis nga sëñ bi. addina bi yi ñu nekk. rien de durable ne s'obtient que sur le courage du travail et que Dieu accueille l'être humain en mettant d'obstacle. addina destin la waaye destin bi da nga koy téye ci sa loxo droite. bàyyi xel ci sa loxo gauche. booy def xoolal sa bët xoolal sa xel xoolal sa tànk lu bon lu ñaaw lépp lu tudd féewale nga nekk ci ëllëg mhm. bu bal bi tàkk sa kaw lay dàkk dëgg la te ce qui sa ressemble sam ressemble ñoom mhm. politiciens yi ñoom ñoo xamante dañ mhm. leen bàyyi seen biir képp ku ci dugg xamal loo ciy wax boo ci duggee ëllëg yaa ci des lu leer ba leer daal mooy képp koo xam ne yaa ngi nekk koo xam ne nekkoo ci politique defal ni Cheikh Asbrahama booy wax waxal sa analise dëgg la foofu bu par parloo booy dugg wala ngay dugg ci lu mën a doon def la ëllëg bu ñu àndee booloo ëllëg histoire dootu la fàtte. Mm-hmm. te mm-hmm. bëri mm-hmm. ba tey boo waxee lu mu a neex lu rafet maa bëgg. ñëpp may Sénégal yëpp jël ko. di wax lu rafet di jëf lu rafet indi lu rafet te vraiment waxoon naa leen ne. période màkk Sénégal dina daal am na dëgg la am na. sëñ bi fii ñu toll. Mhm. at fañ jëm. Mhm. réew mii décision bi am na. Mhm. jàmm rek mooy am ci réew mi te waxoon naa jël sama loxo kii bi dóor. ni jàmbaarloo yi dafay dakk ba mu ko waxee ba dégg koo jàmbaarloo. sëñ bi daal kon yàlla nañu yàlla fay may yàlla. yàlla nañu yàlla may yàlla yàlla nañu yàlla may yàlla bu ñu amee yàlla ci ëwal am ko ci aaxir am ko ci zaahir rek am nañ lépp te bu ñu amee yàlla rek lépp lu ñu wax yàllaa wax lépp lu ñu jëf yàlla wax lépp taxaw yàlla taxaw mhm. lépp lu ñu doxal yàlla doxal te bu yàlla doxalee yàlla jëf yàlla wax rek am loo jox parce que yàlla mooy kalimatu lépp lu mu am moom la te mu wax ci aay ba fa ay namatuwalu fa samawsiwulaa moo fa ne moo fa foo nekk moo fa yàlla boobu nag boo ko nekkee nekk ci jàpp si da nga xam ne lépp lu am yàlla la jërëjëf dëgg la waaw euh, sëñ bi dégg dégg nañ la mais tey euh, comme que Macky Sall day dem Macky comme comme moom day décidé na finalement ni day dem te boobu ba léegi mi ngi toog ci nguur gi ngooy ci Euh, bu fekkee dafa jëlaat keneen koo xamante ni dafa nekk ci Benno Bokk Yaakaar wala mu nekk APR mu teg ko tamit est-ce que dina am est-ce que dina est am dara ci biir réew mi ak li ñu fi def yëpp ak tamit est-ce que bu fekkoon kooku yow dox nga ba mu ñëw si yow seet si la lan nga koy jox lan nga koy jox comme conseil. loolu question bi da nga ko da nga ko répondre ko. Mm-hmm. Euh, kooku di ko doon. Mm. foog mu gis Ass Barham. Mm. wallaahi lazim kooku di ko doon foog mu gis Ass ñëpp ngi daw di mm-hmm. man nag fii ma toll ci réew mi. li may wax preuve à l'appui damay wax nit ñi di teg bët waxoon naa fi ne. Mhm. kuy doon président la république daf may gis ñëpp a ngi daw di ñëw. dëgg la kooku. Mhm. ku mu mën a doon pouvoir. Mhm. ku mu mën a doon opposition ku mu mën a doon. ku jógee bitim réew. pour mu doon ko maa ngi sant yàlla. dëgg la foog nga jaar ci Cheikh Asba. yàlla moo ko jox fi jamono toll at mu ne dafa am yàlla ku muy feeñal. dëgg la. ñun waxantuwuñ waxtu waxandooruñ mm-hmm. te ñu am mission di ko dox te mission boobu foog ñu matal ko pour mën a dem si ñoom. dëgg la te ku ne déggoon na jëmm ju mag ji naan sëñ Fallou Mbacke. Mm-hmm. lu ne woon na am mu am lu mu ne na wax loolu te boo xoolee yàlla bi doon maye mooy may yàlla boobu moo indi as brahma kooku. Mm-hmm. foog mu ñëw jàkkaarlook man ëllëg nag bu doonee président de la république man soxlawuma ministre soxlawuma dara. xam na laa bëgg. jàmm Sénégal. jàmm Sénégal. te bu ma xoolee ci parti xool ci nit ñi xool ci dayo xool ci personnalité xool ci dayo xam-xam waaye lenn mu xamal naa la ko mhm. après élection moom mhm. yeneen fitna dana amaat maye naa boobu yeneen fitna yu doy waar dina am après élection kuy jotaat réew mii Sénégal mhm. mooy gën a sonn Macky Sall ah sëñ bi nag loolu faa nga def si ñaan moom Aliou waaw jëlal lii ngeen bind lii ni ma leen da laan bind leen ngeen denc jëlal lii ngeen bind ngeen denc ko ah. kuy gouvernement Sénégal bii di ñëw. Mhm. mooy gën a sonn Macky Sall mooy gën a sonn Abdoulaye Wade mooy gën a sonn Senghor mooy gën a sonn Abdou Diouf. Mhm. jiiteem bi na dem ba bugg cee génn mu teg ko. Mhm. ndax mooy ëpp coow ëpp fitna te ñu bëri danañ dugg ba ci biir rëccu li tax ñu dugg ñu fal ko. ñu fal ko président loolu dana amaat te dina répété waat te loolu ëllëg bu naree am man mu leer na ma ne kii la. bu yegsee si man kii raay googu laay njëkk a dagg. def ko li ma ko war a def pour ëllëg mu doon suukar at meew mu saf suukar at Sénégal bu naat liggéey bi jeunes yi liggéey naata nga am ci réew mi mhm. yëpp laay def ba pare soo ko samp fal ko ndax samp boobu tey ci biir émission bi naa leen wax loo xam ne moo koy def te naa ko defaree jërëjëf. dëgg la mais d'ici d'ici d'ici ñu jëm élection yi est-ce que tey mën nga ñëw wax ni maanaam jàmm moom déjà dina am te problème dootu fi amaat fii yeeg 2024. non coow politique moom. Hmm. Euh, histoire la boo xam ne. maanaam cin buy baax la mm-hmm. saa su ne rek day ñeer dëgg la coow ak Sénégal képp sëriñ bu taxaw ne la coow du fi amati rek kooku desee am xam-xam la mm-hmm. coow du li fi amoon at bakkan yi daan rot ci réew mi man aspra maa jël sama décision jël lii at samay sarax ak samay décision mm-hmm. ne du fi amati te ku ne xam ne ba ma ko dóoree ba léegi ray gëj na am te loolu initiative bu ma ànd ak ay sénégalais at ay bonne volonté at ay nit ñu bëgg Sénégal. Mhm. ñooñu laa àndal def li may def ba tey yàlla may ñu jàmm ji tey ba décision bi génnee. Mhm. damaa santaat yàlla gërëm Macky Sall. Mhm. ndax li mooy xeex Macky Sall dafa mel ni dafa ci dimbale parce que imagine tey. bu doon damay bokk. doy waar laa gisoon. te pourtant man mii. xeex boobu muy xeex. moom laay xeex mooy jàmm Sénégal te Macky Sall ku bëgg Sénégal la. dëgg la Sonko ko bëgg Sénégal la ñoom ñu ñëpp di wax ñëpp ku bëgg Sénégal léegi nag mhm. man mi bëgg Sénégal man lañu jàppale parce que bu ñu dawee ñëpp ci man la ñuy ñëw dëgg la kon nag sëñ bi daal li am man gis naa ne le plus gagnant ci biir mbir mi c'est Ass tey moom moo tax journée bi yëpp tey dama yendoo saraxe mhm. journée bi yëpp tey dama yendoo bëgg jour bi dama yónnee berne mhm. lu waral loolu mooy damaa kontaan parce que moo sonoon doomu Sénégal yi dara du ko dal mhm. moo sonoon Sénégal day nekk ci jàmm moo sonoon mhm. Sénégal day raw ci réew yi moo ne Sénégal day am jàmm am naataange am lépp loolu ci laay dox suba ak gu guddeeg bëccëg jërëjëf voilà ci jàmm jooju sax la ñuy resté ginnaaw bu ñu jógee ci politique bi dugg ci ki nga xamante ne nii tey mooy ci bërëbu euh, ci ci yi maanaam caabi féete ginnaaw mu am fa ca benn naataango boo xamante ni mi ngi ca biir ñu téye muy Cheikh baar ba Cheikh Baara Ndiaye tey lan ngay wax ci seex Baara Ndiaye moomu ak yeneen sax ñi nga xam ne détenu politique lañ leen di woowee lan ngay wax ci ñoom. ah di leen ñaanal yàlla. Mhm. ndax fa wax dëgg yàlla euh, loolu rafetlu woon naa ko. dëgg la man at si Sénégal. te mhm. ñii seetaan xam nañ loolu. waxoon naa ne wax yi ren moom seen at la. dëgg la sëriñ yi seen wax seen at la. Mhm. journaliste seen at ñëpp. ñuy wax ren. at mu métti lay doon si ñoom. loolu moom teg nañ suñu bët ñun ñëpp Cheikh Bara. Mhm. nit baax la kenn ñaanal ko yàlla di ko dal boroom xam-xam la ku baax la am na njaboot ku doon servir réeram réewam la. Mhm. di jaarale message bu foor ci ñi nga xam ne ñoo ŋañ ci réew mi. Mhm. ay waay bu ñu ko mënee dimbale rek te yàlla tax. jàppale ko génnee ko fa mu ne. ah man de loolu laa ci am wa illah dama am leneen loo xam ne gis naa ko ci moom. fekkee fameem woo nañ ma am na loo xam ne naa ko def ci këll hmm. këll goo xam ne kënn monaat la te naa ko révélé tey dëgg la ah buñ ko defalee loolu muy baatin hmm. bu fanaanee ci leket balaay bët set bu jot bu këll gi paree ci liñ fay def ba pare ba boole koog sunguf ñox sunguf maanaam njigiir hmm. def ci liñ ci def boole koog juróom-ñaari mbuusu glace glace yi seey ci biiram incha allahu rabbi dana am liberté man nag kilifa laa ah damay ñaan. moom mhm. mooy jàmm Sénégal bu may mbokkam woowee te gisoon nga Gaston Meng li ma ci waxoon. Mhm. Euh, ne leen feebar bi gis nga li am waxoon naa ne Gaston dana ñëwaat ñëwaat na. dëgg la te ay mbokkam woo nañ ma. Mhm. dëgg yàlla ba ma ci duggee ñu def sarax yi gis nga li am. kon nag man Sénégal néew ma fi newatuma ma fi ngir ut alal. bu dama ne pour servir sama réew. waaw yow ci feebaru googu waaw ci Gaston boobu sax wax defoon nga ci révélation te gis nañ ni tamit li nga waxoon lépp maanaam euh, naka noonu la la la demee tey daal moom vraiment moom li ñuy gis si ci ci ci Cheikh Cheikh Barham mais mais Cheikh Cheikh Barham lan moo koy inspiré lan moo koy inspiré euh, ragal yàlla uh-huh. taqalaa bu nekkee sa jëmm mm-hmm. te muy ci yàlla wax ci alxuraan boo ragalee yàlla te ragal yàlla bi dëgg ci yow mm-hmm. yàlla man nee na man maa lay surtout rahmaan la maa lay fekk fa nga ne xamal la Mm-hmm. wan la jëfal la may la dolli la si asbraan dafa ragal yàlla taqulaahu boobu moo ne ci jëmmam mm-hmm. moo tax mu dem ba am ijaaba ci jëmmam ba lu mu wax mu am mm-hmm. lu nekk nekkal mu nekk yor kurus yor salaatul faatiha bu dëgër doon muxaddamu cheikh ahmada tidiane sérif bu wër boo xam ne fukki sa ak juróom-ñeent yoo xam ne maa ngi ko yor am na ci yoo xam ne sax ay marocain ñoo ko jox yi ay naar ñoo ma ko jox yi ay waa arab saudi ñoo ko jox kon asbraan maanaam jagle yàlla bu yàlla wàccee muy muqaddamu Cheikh Ahmadou Tidiane Sirif hmm. boo xam ne maanaam muqaddamu Cheikh Tidiane Sirif rek laa hmm. ndax ku ko ma waxoon ne xaddamay xaataani ala rahmatin kullu waliyu lillaahi jël naa sama ñaari ndëggu tànk yi hmm. def ko ci bépp waliyu yàlla loolu du hasard dëgg la ñu ne ko lu la may mu ne kat mietu ak xat mietu kat mietu ak xat mietu moo may euh, euh, xajul ci waaxu xale xat mietu xajul ci waaxu xale xat miyaa xat mietu rek maqaama boo tawee da ngay taxaw ci kun fayekunu yàlla te loo wax day am loo jëf day am bu dee dëgg ci yow a ragal yàlla mhm. doo moy doo njaalu doo def lu bon doo doo dugg ci riba doo rek ci lekk lu ñaaw doo njaalu doo foo jigéen bu sa jabar loolu sa jabar mhm. saa su ne yàlla day sotti mhm. sotti boobu muy sotti ndap lu set la te du dëñ di si sotti heure boo mooyee wala nga bàkkaar wala nga def lu ñaaw yàlla rocc parce que yàlla ñàkkul fayda dëgg la saa su ne day def te buy def day def te buy def ngay gën di def wax faskur nii waskur ko mhm. tudd ma ma tudd la kooku da wax da jox mbir mi mu leer boo ko tuddee benn tudd lu ëpp li ñu ko tudd junne mu doon million tudd googu mooy tuddanteeg moom day dem ba doo fodaay te lay avancé mhm. nga taxaw ci ma ci jëmm mhm. yàlla ji moom jërëjëf mhm. si loolu sax la ñuy taxawee ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoom la ñuy tudd sëñ sëñ sëñ bi tey euh, mooy ki nga xamante ni mooy euh, Gaston Mbengue moom ñu ngi koy tudd tout le temps nee nañ sax dafa nekk en coma nii ba feebar bi da koo jàpp ba tëral ko tey loolu noonu lan nga lan ngañ ci wax il faut ñu jóg ndax problème mu Gaston dama leen junj waaw na leen dana ñëw mhm. mais mbir mi dafa des ay sarax ay ñaan mm. te li ko dal fa ko dalee mhm. ca bërëb bu mag ba la bërëb bu mag ba foofu la amee woon mag ba ba amoon mm. foofu la ko daal foofu la ko dale foofu daal mbir mi foofu la amee woon ci bërëb bu mag ci bërëb bu mag ba loolu nag lu ñuy régler la fekk ko fa mu ne cot la Mm-hmm. ñu jël code bi dindi code bi. mais loolu baa wóor naa ci mbër yi mbër yi fa nekk yëpp mbër yi ah. baa duñu am problème tamit ci côté boobu. Ah, mais xam nga Sénégal nag moom li fi nekk mooy. ku mm-hmm. gëmul xar fa xur fa. Mm-hmm. ko sëñ booxoon rek. Euh, am sa jafe-jafe. il faut ngay sangu di takk di naan. si jamono moo doy waar nit ñi xeebu njara. ñun nag euh, ku bëgg ku ko bëgg lañ. parce que moo ngi contribuer ci Sénégal. ñun dañu gëm Sénégal. képp koo xam ne yaa ngi def ay contribution ci réew mi ñun mhm. dañ lay jàppale mhm. ñun jàpp bu ñu ko doon jàppale yëpp jàppale mhm. ñu ko woon ngir dara dañoo jàppoon rek pour moom mu dellu si waat a dimbale jeune mbëri semence bi day wàññeeku dëgg la xale yi dem bëri ci am liggéey loolu contribution boobu lañ nekk rek ñun waroon ñu ñaanal ko yàlla ñaanal goo ñaanal yàlla dafa des nag dafa am loo xam ne nag da ca biir suuf bu sutante dañ koo jàll dëgg la il faut yàlla def la muy def. Hmm. da ngay ñu dindi kot la. kon moom bu ñëwoon nii nga dindi ko. dañ koy décoder rek mu dañ mu dem yoonam ah décodage. Hmm. bi man lii dama ko wax. Hmm, te gis nit bu lay wax waxu démbam. dëgg la nga xool waxu moom mu tombé juste. waaw mu ne la dina feebar ku ko njëkk a <laughs> na mu ngi bitim réew am sax benn ñenn ñu gën naan feebaru mu taxaw a ah, personne feebar naa. Uh-huh. ñu ne waat déet waaye nga taxaw fii ci Allô Sénégal ne dina ñëw. waaw yow nit ñi ñoom lan moo leen dal. ah nga ne waat dafa am code bu ne ci moom. Hmm. ku wax lii wax lii waxaat lee xamal loolu dëgg la. ah vraiment. nit mënoo wax waxaat waxaat. Hmm. nañ ñëw mu décoté mbir mi mu delluwaat si activité parce que wuy servir Sénégal la. te hmm. doomu réew mi la te ku baax la. dëgg la jërëjëf. waaw sëñ bi ginnaaw bi ñu jógee ci ki nga xamante ne nii mooy gason tey gis nañ ni daal dëkk bi bari nay violence trop trop trop trop trop sax violence bi moom foo ko natt guddi yi ñu toll weesu na ko ba violence yooyu sax moo dem ba nga xamante ne nii dañoo poignardé maanaam jam ki nga xamante ne nii mooy benn euh, imam tey imam bi nag jam bi moom kiimaan la trop moom daal loolu daal question yi daal bari na ci wax ji bari na ci loolu ñi nee nañ dafa mystique la ñi nee lii la ñi nee nañ lële la paak bi dafa lemu tey lan nga ñuy wax ci loolu noonu xew xew boobu noonu nga xamante ne nii tey xaaruñu ko woon tey ci wàll boobu muy muy imaam senegal nañ fexe waxoon naa ko refee woon naa ko mu ngi mhm. ci réseau yi xale yëpp a ngi koy teg dëgg la naa tëbaski na xew-xew buy am mhm. bu doy ci après yi ko doon programmer mujj échec. dëgg la ko rab yi ne ci dëkk bi. Mhm. ñoo dugg jeunes yi. Hmm. di leen jëfloo. xanaa xamoo ne rab ak jinne mhm. bu la utee ba sonn. Mhm. baam la. violent bu nekk ci moom. waaw na la ko sotti. moo rab dugg xale bi jigéen di seey moom. à tout moment te xale bi yëndu ci ma dara. jëf jooj muy jëf xale bi jigéen bi mm-hmm. ba nga xam ne xale bu jigéen bi mënul dara ci loolu mu koy def loo amul benn accès loolu dem ci sëriñ mu dindi ko mm-hmm. noonu la mën a fekkee xale bu góor buy jàng wala xale mm-hmm. bu baax tollu ci âge bu jeune wara dimbala ndeyam ak bàyyi mu dugg ko fexe ba xale bi violent loolu nag question boo xam ne la ku nekk nga ciy wax mais foo ñu tey parce que ku àndut ak xelam kooku en matière de justice sax kooku amul lenn loo xam ne luñ koy cadré parce que xelam nekkut ak moom dëgg la te l'esprit tranquille sain dans un corps sain mm-hmm. esprit dafa am ay normes ci wàllu bopp ci bët parce que l'œil est l'organe de sens le plus précieux mm-hmm. gis na gis na récepteurs yi connecté nañ ak récepteur périphérique mm-hmm. jël na élément wu paaka bi daw jubal ko yàlla ñëw foofu dafa am jàngat bu doy waar ma ci parce que dama tojoon ci euh, li nga xam ne moo feeñ ci tabaski bi diggante yunt yàlla suñu maam Ibrahim ak Ismaël diggante bi nga xam ne Ibrahim bëgg na rey xale bi euh, ne ko dama yàllaa mu jox ndigal pour ma ray la xale bi nangu uh-huh. euh, diggante boobu Ibrahim lu mu buggoon bëggaloon euh, Ismaël mooy fannaaw naaw mm-hmm. dama gis ne imam bi dafa toll ci maqaama bu mu war a tëb pour jàll ci beneen maqaama mm. maqaama yooyu nga xam ne nag moo koy gane si moo war a loolu gane si ko waaye bu ca deewoon tey. Mhm. wala mu loru ci directement àjjana la jëm. Mhm. te boobaa mission am day day day kii gis naa sax ñoo ne ñu naan ay wartoon daw non kooku ndoxalu yàlla la. war mm. naag warul. Mm. kooku ci yàlla bu neexoon yàlla day dee. te dee sax benn dee la mooy dee balaay dee di ñëw. Mhm. boo dee dootoo dee. te dee gi may wax. moom la maanaam Ibrahim bëggaloon Ismaël. ba mu jëlee paaka bi mu remplacé ko mooy kurus gi laata muy rëdd. yàlla yebal jibril ci àjjana àjjana xar ba ñëw ñu remplacé ko mhm. foofu dafa dem ba nangu dàq kiiraay dàq lépp mhm. ndax ñaara am mooy euh, euh, naarul ijaab naarul muhabbati naarul hasab mhm. ijaab bi nga xam ne moo dox sa diggante at yàlla suñu borom boo nekkee ci kàbbar du julli da war a dàq lépp ndey amul bàyyi amul dara amul yàlla am nga saxal yàlla allahu akbar jàkkaarlu miir ana yàlla tànk xamoo yàlla fam ne ci sa kanam sa julli des na dëgg kon fu da ngay dàq ne dara amul Mm-hmm. yàlla moo am bu leneen di ñëw di la digal fi Ismaïla demoon ngay nekk mm-hmm. doo fa gis paaka doo fa gis rey mm-hmm. yàlla ngay gis te boobaa yàlla damaa gis ne moo lem paaka ba parce que lem ba mu lem paaka ba ci maqaama ba dëgg la mu jéggi fa mu nekkoon dem ci maqaama bu ñuy wax siddiqeetun siddiq boobu nag moo ko may loolu te loolu mooy dafa liggéeyal yàlla ba yàlla war ko fay mission démb mooy tey fee mooy fii fii mooy fële kon nit ñi nañuy bàyyi xel yàlla. dëgg la léegi nag li nga def loolu xale bi ak action bi am bu neexoon yàlla du am. Mhm. waaye rab provoqué na ko. seyaatin yaa ngi ci ndax iblis ba ko yàlla di indil maanaam aadama naa ko sujootal ko muy bañ. Mhm. kooku li newoon ci biir xol ba loolu leneen la te loolu moo nekk ci xolu ñi nga xam ne rab na leen dugg. dëgg la loolu waral nag action mu am kon nag le mal revient toujours à celui qui le fait. Mhm. ce que passerait à la passera à la caisse. pour payer la facture de, de, de sa méchanceté. Mmh. Et la douleur qu'elle a créée dans le cœur d'une personne. à la kuli alin mm-hmm. lépp loo fi def ëllëg da koy fay. lu waaye ren di ren di mm. ci sa loxo lay naaj. Mm-hmm. waaye nag il faut ñu organiser waat Sénégal. Ah. defaraat jeunes yi. Mm-hmm. utal leen liggéey. mettre leen si ay conditions jël ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay nit yoo xam ne nekkuñ ay nit yu normal. yóbbu leen ci centre yi. Mm. Sénégal il faut ñu développer ay moyens ci côté boobu parce que paaka que ni ñu koy jaayee ci réew mi c'est pas normal il faut ñu organiser waat suñ bopp mm-hmm. parce que à tout moment danger mën naa am tabaski parce que partout dans le Sénégal foo tourner paaka yaa ngi lambar lambari dëgg la bu la neexee nga jël benn rey ku la neex mm-hmm. kon dañoo war a organiser waat jaay paaka yi mm-hmm. organiser waat ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ànduñu ak seen xel di leen jox ci ay centre ku ci am malade mental ci dëkk këram mhm. ñu réserver la bu amul moyen ñu ut état wala kenn ku leen dimbale yóbbu leen ci centre yi ñu leen jël nga xam ne dañu am accès at nit ñi waaye jë dëkk bi nag dafa bëri ay nit ñoom dañoo dañoo dafa pare di di lekk di naan di solu set <laughs> dof bu nekk ci biir nit nag boo ko jàppee nit yaatoo ci bopp bu la rayee yaa yaa yaa xaru mais nag dëkk bi mais nag sëñ bi dëkk bi dafa metti nag dëkk bi moom dafa metti trop dëkk moom liggéey amu fi dara amu fi moo waral xam naa yenn pratique yi nga xamante ne ngi am waaw euh, sëñ bi ginnaaw bi ñu jugee ci li nga xamante ne nii mooy euh, xew-xewu réew mi rawatina violence bi fi am tey euh, ban siñ astrologie ngi lañu la nga ñu indil tey macha allah ñu ngi sant yàlla beneen yoon di wax ne alhamdulilah xam-xam daal mooy njiit te xam-xamu zaahir ak mhm. xam-xamu baatin muy mhm. am pour mën a kamaal dëgg da ngay yegg ci jëmmu yàlla ji mhm. ba dàq ne dara amul ba pare nag nekk ci fannaaw at baqaaw pour mën a régler li ci suuf ak li ci kaw xam a yëpp aaxut laaxut malakut jabarut naasut naasut mooy fi na ne nii hmm. xam payru yëpp xam mista wan sadratu muntaxaa lépp nga peeg ko téye ko loolu mooy xam-xam hmm. bu ko defee nag boo ne am naa xam-xam rek ci alxuraan sa xam-xam boo toogee ki nga xam dafa am xam-xam leneen boo leen waxtaanee dalay daan kon da ngay xam fii ba pare xam fee dëgg la te boo xoolee cancer hmm. maanaam dafa nekk ci benn signe kër goo ndax yooyu ay kër la ñoo kër la cancer maanaam scorpion yu ay kër la. Jupiter cancer dafa am kër kër goo xam ne mhm. la mu ngi nekk ci 22 juin au euh, 22 juillet. Mhm. kër gu doy waar la boo xam dafa ànd ak ay symbole xam nga cancer lan mooy symbole am. Mhm. lan mooy symbole am jim xob. jim mooy karaan. ci olof karaan benn genre euh, kii la daal boo xam ne rab la naan karaan naan ko jim xob. jim xob cancer yi. boo xoolee ñoom dañuy référé wu ci tajliyaat karaan ak jim xob. moo tax cancer yi te karaan. rab boo xam ne la moo gën a bëri métti métti ci yeneen yi. Hmm. parce que boo xoolee euh, maanaam li nga xam ne mooy cancer nit yu koy doon yëpp dañu doon ay nit yu dëgër ay révolutionnaire la ñu doon. ay révolutionnaire ku juddu ci vingt 22 juin deux juillet foo ko fekk mënoo ko fekk ci bërëb. Hmm. defloo ko lu ko neexul te dallu sa kaw amul. Hmm. cancer bu am loolu. ku am fulla lay am doy doon ku am fayda lay doon ku di diiñ lay doon ku am personnalité ci boppam donte am na wala amul. Hmm. ko réflexionnaire yi yëpp ay ay cancer lañ. cancer boo xoolee boo xoolee ku ñuy wax Patrick Mouma. cancer la hmm. il est né en 22 juin 22 ki ñuy wax Ousmane Sonko bi ngay gis. Hmm. cancer la. yaa ngi dégg ki ñuy wax Nelson Mandela. cancer la ainsi de suite ainsi de suite boo xoolee nag ñoom seen seen seen seen i mbir dafa lié ak ay tabiyatu tabiyatu insaantu dafa am ndox am ngelaw am suuf am ndox am am safara. cancer yi nag ñoom ak scorpion yi ak poisson yi ñoo bokk seen tabiya mooy maayu maayu mooy ndox cancer scorpion poisson ñoom ñoo bokk seen tabiya mooy tabiya ndox balance yi ak jumeaux yi ak mm. verseau yi ñoo bokk seen tabiya mooy ngelaw yaa ngi dégg mm-hmm. taureau yi ak vierge yi ak capricorne ñoo bokk seen saf seen tabiya mooy suuf bélier yi ak lion yi ak sagittaire ñoo bokk seen seen mooy mooy mooy mooy mooy safara est-ce que lii ma lay wax mos nga dégg sëriñ wax la loolu moom mosuma ko dégg sànq sax bëggoon naa laa laaj man tey lan nga def ba xam yii la xam-xam parce que yii moom ba ci bitim réew lañ ko daan gisee ñu koy def di Sénégalais sax gisuñu maanaam ñi jàng di ko def la plupart du temps tey ñu gis la yow nga toog toogaayu wax ñu ci ay cancer ay signes astronomie yoo xamante ne nii mos ñu koo dégg tey tey tey xam-xam bii moom dafa raar trop trop trop ci sëriñ yi yi ñuy gis fii nii benn borom xam-xam mag bu nekk Sénégal bu wax ne seyru illaahi yantaqi mhm. mu ne seyru fil illaahi laa yantaqi dox ci yàlla bu amee euh, dayoo rek ne fii laa yem rek sa dox des na mhm. borom xam-xam ne da dox ba ci biir yàlla sama kër gi boo fi ñëwoon tey nga dugg am koo xam ne dafa taxaw ci biti yow mhm. mi dugg di nga xam saal bi xam néegi xam néegu barxaam mhm. asbrahama kene ci bi du xam ci biir xam-xam noonu la mel mhm. dafa ci biir am ci biti am ci digg doom bi xam-xam ko mooy séru fil illaahi la laa yantaqi da ngay dox ba ci biir xam-xam bi baraada boo teg ci biir kaas jël sa ndox def ci warga bi ba nga ko fay def ndox kese la woon nga sotti li nga xam ne mooy warga bi jël suukar mélangé muy suukar warga ndox nga teg ko ci gaz mu mélangé rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme transformation moo la jox ataaya juuf saf sap nga naan ne alhamdu alhamdulilah ismulaay sax hmm. waaye xam-xam nañ ko di waay dëgg la dëgg la naan gi naan sant yàlla mooy ismulaay azam tur yàlla bu màgg boobu hmm. diggante bi nga naanee def level deuxième yaa ngi si fàttitu kitab hmm. waaye sëñ bi xam-xam nag nañ ko dem gëstu xam-xam nag boo demee ba dox ci biir xam-xam da dem ba jeex ci jëmm yàlla ji dëgg la boo jeexee ci jëmm yàlla ji dootoo fi nekk sax di calculer fii at fala da ngay dund ci yàlla te yàllaa lay wax yàllaa lay jox yàlla lay informé da ngay jàpp ne lépp lu am rek yàlla la. kon daal ñun même bu nit joxee fee sax wax la dara. wax la loo xam ne lu ñaaw la sax da nga koy mujj def rafet. Hmm. parce lépp lu ñaaw lu rafet lay doon. dëgg la lépp lu métti lu neex lay doon ci yow. lépp lu bari doo xam alal doo xam bànneex doo xam ñàkk doo xam mu ne borom xam-xam dafa toog ñëw ñu ne ko sa doom dee na ma alhamdulilah diree ñu ne ko sëñ sa doom dee na ma mu ne jox gi ma ko joxoon. Hmm. jël gi nga ko jëlaat. ma hmm. jàpp ne ki ma joxoon moo jëlaat. loolu dimension la ci wàllu xam-xam mm-hmm. foo nit ñi di toll foofu ci wàllu xam-xam boo amee nga xam ne am nga boo ñàkkee nga xam ne yàq nga boo ñàkkee nga xam ne am na lu ñu la réservé fële boo amee nga jël ci dimbali ci néew doole yi daal bu ko defee mm-hmm. nekk ci xam-xam incha allah yàlla dalay dimbale teg la xol te yàlla nag li mu yor lépp mhm. dégg na yaa ngi wax boobu ba léegi yaa ngi wax sànq yaa ngi doon wax ay français yëkkati nga fi ay français kàddu ah, français ah. yëkkati nga fi tamit ay kàddu yoo xamante ne nii ci astronomie ah. maanaam niveau de niveau de boobu noonu nga nga taxawee tey tey jaaxal nañu bari jaaxal na sénégalais yëpp parce que dañ naan tey kii bu génnee fii bu subaa fële lay génn ak plus les révélations yi nga xamante ni yaa ngi koy joxe tout le temps mm. tey tey sëñ as as barxam docteur lañ koy woowee wala war a woowee ban nom bu bees lañ ko war a jox. Cheikh As Brahma nee nañ borom li jaam nañ ko doon Cheikh As Brahma taalibe Cheikh Ahmad hmm. man nag ma xamal la leen lu ñu bëri xamul. dara hmm. daf mu yëngalul. Hmm. tey eh, li am yëpp ku nekk di coow jëmm ji jëmm jooju ngay fekk tey mu toog di ataaya ak ay doomam di kaf di ree jëmm jooju ngay woo mu mel ni du moom. jëmm jooju lu ko yàlla defal gisul ne lii moom la da gis ne loolu passage la pour jaam yi. dëgg la moo tax xam-xam beeg jëf yeeg lii nit ñi di wax ak. jàng bi c'était bon et bon jàng naa mhm. zaahir alxuraan jàng naa ci français lycée Valdiodio la amee sama bac français jàng naa astrologie sob naa ku bëgg xam-xam laa ku daan gëstu maa ma sa toog ak sama benn sëriñ bu mag mhm. ñu waxtaan mooy tarbiya ndeysaan ñu toog euh, mu ne ko yow fii nga toog nii mhm. bul yaakaar dama lay topp à à à vie mu ne ma ah, li tax nga wax loolu ma ne ko parce que fii nga toog ma bëgg naa faa toog mu ne ma am nga fulla mu jox ma am loxo am nga fulla de mu dox fa ba sëyroom jeex si ma demaat si beneen sëriñ fanweeru sëriñ ak ñett dox naa seen sëyru hmm. ku ci dox sa sëyru ba jeexal sa sëyru dëgg la damaa mujj jeexal seen sëyru yi ñoom ñëpp mu xanam hmm. yëpp hmm. ma di di gëstu ji affaire astrologie ah dem naa ba dugg biir Afrique di ko gëstu dama dugg xam-xam daf ma jaral na te yonent yàlla ma xam ne moo ne xam-xam na la jaral dem ba Chine Chine bu fekkee xam-xam jaral na la nga dem ba Chine foog nga am ko nit ki lu mu bëgg rek la ko yàlla di jox dëgg la boo xëyee nga ne moto laay jël chaque jour mooy dem ville moto laay jël chaque jour nga am jógu moto boo ne dama bëgg ren si wala avion nga gëm ko nekk ci yàlla lay jox avion wala moto. Mm-hmm. li nekk at sa xol at maanaam sa jëmm lu ci ne rek at sa bëgg-bëgg at sa gis-gis ak sa existence ala nga loolu la la yàlla jox. Mm-hmm. ñun nag dañoo yitte woon xam-xam doon xale. Mm-hmm. jaaruñ fi xale yi jaar. dëgg la yëpp xam-xam la bañ demee ba yàlla dimbala ñu wax ñu loolu am na jërëjëf macha allah. waa kay euh, sëñ bi jeexal nañ sax ñun suñu suñu suñu première partie yaakaar naa jël nañ temps bu bu large ci côté li nga xamante ne nii mooy politique bi ak li ak tolluwaay réew mi tey dañuy xool lekk li nga xamante ne nii tey moom lañ fi fekk muy garab yi nga xamante ne nii moom la ñuy gis nii euh, di ko séen euh, nga wax ñu ci rek tey garab yi naka lay naka lay demee. dañoo toll ci réew mi foo xam ne. bu mhm. doy waar xam nga lii. ah lii de maa ngi koy gis. xam nga lii lan la. lii de moom maa ngi koy soog gis. ndax mënu laa wax ban tànk la ci tànk yi. tan la tan bi ngay dégg hmm. kii mooy tànkam tànku tan gis nga flèche bii ngay gis ci wewu tan bi nii flèche bii mm-hmm. flèche bu dangereux ngi nii hmm. tan moo gën a maandu ci rabu àll yi tan du fekk mukk mm-hmm. lu deewul mu rey la te man na flèche bii moo gën a garaaw sax loo gis ci fetel bi rey waaye dañ naan tan gorewul lu ma yegg si tuuti rek. Ah. bu ko defee tan balaay lekk dara. Mm-hmm. foog loolu dee ba pare. dëgg la mu soog a ñëw jëriñu mm-hmm. Mm-hmm. première réaction bu tan di def ci médd mooy lii gis nga tey bii dafa vertical. Uh-huh. ki dafa taxay allaaw. bii dafa dëng xool ko. dafa dëng miim Mouhamed dafa dëng waaw. bii dafa def nii. def laam. kon alif la at laam at miim. zaalakal kitaab bi nii bii lay xottee ndawal li hmm? xoolal sëñ bi <laughs> la kon lii bii ñett yi ñett hmm. ñett yi ngay gis nii te hmm. zoom ko nga xool ko baax amul ci baatin lu ma ci mënul def nit lépp loo xam ne lu tan di def yàpp ndawal man asbra ma ci baatin mën naa ko ci doomu aadama ci doomi aadama ci doomu aadama parce que xam-xam boo xam ne dama ko jàng maîtriser ko xam ko te du lépp laa mën a wax ci télévision mais ni tan di def ci ci ci ci ci mbedd moom bu ko defee ci doomu aadama nag garaaw de mais li ci daal fu mu toll daal mooy. Mhm. am solo ñu codé yenn yi wax yenn yi. waaw mooy bu la euh, mbir sonalee. feebar mhm. bu sonn ci sa yaram. Mhm. nga dem mënaloo si dara ba ñu an dee ak deewul. ñëwal seeti asbram ñett yii laay jël dama koy dëbbam mokk. mu ko dee mokk am na lu ma ciy boole dama koy codé nag parce que gars yi dañuy jël rek di yóbbu. mu la ko joxee ba nga dëbb ko. nga dem ba kooku feebar nga suuroo ko foofu noonu. Mm-hmm. saa si da ngay jóg. Hmm? kii day toj liggéey bu gaaw ci nit. kii boo ko jëlee nga samp ko nii sa buntu kër nii. Mm-hmm. jël li nga xam ne mooy fàttali kitaab nga def fii def fii ci diggante Inna Barsa def ci kanam alam nasara. Mm-hmm. nga def sa biir kër gi na neex dana naat te kañ la mën a dara. Ah. kii mu te li ma ci yor. mu wax ci émission ndax émission bi mu ngi bëgg yàgg. dëgg la dëgg la. dëgg kooku mooy. waa kii de ah signal signal ngoog waaw. kii. Mhm. rab yëpp moo ci gën a hmm. moo ci ëpp protection. Mhm. rab yëpp signal la ci ëpp protection. waaw wane na ko. parce que moom bu lemoo. Mhm. pour nga jàpp ko day jafe. te bésu alxames maye naa lii nañ ko jël ñëpp. ku fekk signal di dem. nga bàyyee ba ba mu wan la ginnaaw. nga nga jël yat bi ñuy wax jalamaan. jalamaan nañ jël lii ñu bind. nga laal ko ci ginnaaw. ndigg li nii moom taxaw mhm. nga ëlbati ko mhm. nga fexe ba jël ko dugal ko ci layu xam nga layu layu waaw lay yooyu layu nga mhm. bàyyi ko fa avant nga ko fay bàyyi bu su alxames boobu taxawal nga ñaan yàlla sa soxla yëpp soxla boo am ci jouru alxames boobu bu fekkee ne min mi paaseegul min mi paaseegul min mi paase day bokk ci àjjuma ba dëgg la mais diggante vingt et une ba min mi fexeel nga laal ko nga ñaan sa soxla soxla boo ci bëgg am da nga am dee signal bi mhm. dafa am protection bu mu am ci wàllu nit koo xam ne boo ko defee nga boole ko xaatim Souleymane juróom-ñaari façon la mhm. nga bind xaatim Souleymane bu ci ne nga boole ko ko laqat jaaxum boo ko defee boole ko suuf bàmmeel nga sangoo ko la liggéey day dee armée la la hmm? ku la liggéey faatu ah kii dafa baax ci kaaraange baax ci lépp te boo xoolee mhm. day toj liggéey ci saa si moom it am na secret yoo xam ko ci yor yoo xam defee rek incha allah boo ko defee ci saa si da nga gis bu fekkoon dañ laa takkoon ba nga ne ñot wala ñu takk la xala wala ñu defal lu ñaaw rek. Mhm. boo defee ci saa da nga gis loolu de boobu mooy signal. mooy si lu ma codé moo ëpp foofu li ma wax ku ma seet si ma jox la leneen lu xam nga hmm? la. Hmm? ki mooy munaat. munaat lu ñu gëj a hmm. kii ci yu gën a mystique la bokk moom lu ko yàlla may. dafa may rab ci wàllu may. comme mm-hmm. jagle yàlla yonent yàlla moo xam ni ko yàlla jagleel muy imaamil mursalina mm-hmm. muy mujj ci yonant yi gën yonant yëpp kii dafa am ay jagle ci wàllu rab yi moom bu amee doom mm-hmm. doom bi nekk ci kanamam mën na taxaw ci ginnaaw doom bi wala ci kanam bi xool ko ay bët perpendiculaire perpendiculaire mu koy nàmpal te du ko jox wen lu doy waar a ngi nii loolu kéemaan la kii mooy monat waaw loolu moom kéemaan la te secret yooyu ñi xam rab ñu xam monaat nañ gëstu li ma wax tey am monaat seen kër nañ xool. Hmm. monaat doo ko mos a gis mu génnee weenam di jox doom. Hmm. te pourtant nit at lu muy fort fort fort day génnee weenam jox doom meew di génn. dëgg la monaat day nampal doom ji. te du hmm. ko jox ween. loolu may la. moo tax yàlla dafa kamal. monaat gi dafa baax ci fal ci réew juñu naa ko sànq ci biir. këll bii ci kaw dañ koy dëb ba mu doon sunguf. ñu jaxase ko at maanaam li ñuy wax mante mbaare. mante mbaare ñu dëpp ko ba mu mokk rimbax mhm. bu dee Sénégal dafa am ay koñ gox mhm. da ngay jël Dakar nga jël fa fukki maanaam selebe yoon ak ñeent parce que Sénégal fukki région ak ñeent la mhm. nga dem Mbuur jël fa fukki selebe yoon ak ñeent Ziguinchor Tambacounda ba mu mat nga ñëw ba ci man nga ndil ma ko bu ma la ko joxee ba nga jëfandikoo gox yi ne ci Sénégal yëpp wanee fa dañ lay lii moom def naa ko ci élection mairie bon ñu bëri vol fal ah kon lii dina arrangé ñuy def politique preuve yu mhm. fukki région ak ñeent mhm. fukki selève yoon ak ñeent la may àndal nag ah mhm. damay bañ gaa yi jël code euh, secret bi waaye loolu nag secret la mënu ma ko codé dëgg la bu la ko joxee mu incha allahu rabbi loo wuti ak sa morom yaa koy gañ te lii secret bi moom am na ci ñoo xam ne kër lañ lay yëkkati may la da nga la ko defal tey ñu gañ a may la kër te bu ma doon lim maire yi fii ah sëñ bi nag dana doon sekkare buy wuññeeku. Ah. ëpp nañ ay maire yu jeex senegal yu si gën a bëri ci ñu doon ñaanlu maa la ñaan. dëgg la lii ma lu leer na te bu ñu ma déggee dañ ko xam. Mm-hmm. ñëpp bi laa la jox. dëgg la mu ngi dëgg la. bu loolu weesoo. dëgg la waaw jamono ji dafa bëri. Mm-hmm. li nga xam ne moom moo bëri ci télé. Mm-hmm. kii la ñuy wax maanaam euh, reenu olom góor. yor soxna mënaloo ko dara. dëgg la dafa métti. dafa bëgg mu jeex ndox mu tàng ngay jël. nga sotti ko nii def nga si ñaari leen def jël ndox sax ba mu tàng nga sotti ko si. Mhm. matin midi soir sept jours bu la neexee bu ko naanaat. Hmm? kii olom la dafa am solo ni mu amee solo nii noonu la mel moom it at bii kii mooy sulukum. sulukum. sëñ bi lii may wax ay ay tur laay tudd. dëgg la te ñi koy dégg. te mhm. am borom xam-xam dañuy xam ne lii maanaam preuve à l'appui la. Mhm. sulukum ren la may naa ko. ndox mu tàng sulukum ngay jël boole ko olom. Mhm. jaxase ko jël ndox mu tàng def ci nga sangoo ko dëgg la naan ci boo ko naanee puissance ci jigéen mun na nga am ba sa topp nag mooy bii nga xam ne mhm. euh, ñu bëri sax ñoom ñoo koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy gis mhm. mooy reenu keng reenu keng moom siw na moom bëri ci wàllu télé moom xam keng waaw siw na keng moom baax na ñetti reen yi waaw mooy reen yoo xam ne boo ko boolantee man kamaal ngay am sulukun xolom ak keng jëlal ndox mu tàng lu tollu cin def ko une semaine di naan matin midi soir nga xool Mhm. di nga am kattan ba sa jabar sax incha allah yow xanaa daa am looy foo jëm foo fooy looy laal leen. mu mhm. maye naa ko gratuitement. loolu mhm. weesoo nga jël bii nag nga xam ne moom laa lay may mooy sa ñan. sa dafa baax ci seytaane dañoo jëm ci nawet moom ak mante mbaare ñoo yam maa ngi ñaan yàlla ku ne na damm ci sa ñan tuuti. damm ci mante mbaare takkal sa doom ci nawet. ndax ren jii nawet bi. dina bëri sayaatin yuy dugg ci biir xale yi xale dee xale na bëri. Hmm. ci nawet bi léegi tey mu ñëw dëgg la boo ko takkee seetaan du la mënal dara dëmb du la mënal dara hmm. seetaan la doon rab du la mënal dara hmm. jaan sax du la lom seññeel boo ko takkee jaan du la mën a may naa boobu dëgg la nga jëlati bii tey moom laa lay jox léegi mooy bii moom la ñuy wax reenu euh, ma njigiir njigiir njigiir dafa wax ci affaire bayre moom at li nga xam ne mooy maanaam mbër bëf ñoo yem moom mbër bëf mbër bëf mu ne nii ah kookoy mbër bëf si da ngay am moom ak timbit timbin xeet yu yëpp ay xeet yu baax lañ moo toppee may dina dina bëri lool. Mhm. bii nag moom la ñu wax mais euh, mu sump. sump sump moom dafa baax lool ci côté maanaam koo xam ne dafa dafa dafa yor yaram bu tàng. wala mhm. bopp ko sonal. Mhm. baxala la di naan boo koy naan bopp day bàyyi. loolu daal laay lu may maye tey ba beneen yoon incha allah. ok ok euh, jërëjëf euh, sëñ Barham kàddu yi rafet na dañuy jeexal émission bi rek ak li nga xamante ne nii tey moom la. pratiquement sénégalais yëpp di xaar parce que chaque fois moom lañuy xaar parce que li tax ñu koy xaar mooy heure buñ heure bu ñu ci waxee rek après dañuy gis ni loolu lay am typiquement du am benn changement ci li nga ci wax ji muy li nga xamante ne nii moom nga ñu tàmmal di ñu ko defal muy révélation yi tey lan nga ñuy wax ci xew-xew ak li nar a xew ci euh, réew mi ah hmm. doy na war li ma gis si réew mi hmm. ah, Hmm. rus naa la trop saxaa bu mag nga woon mais Aliou hmm. doy na waar ah. Aliou nawet bi hmm. dama gis jéey yi muy def nawet bi doy waar gis naa ab étage buy daanu Dakar ah mag ay waay nañ nañ euh, architecte yi nañuy xool tabaxkat yi kër yi dañ ko defaraat gis naa kër guy daanu Dakar kër guy daanu Dakar di am ba dese di ci am ci lii Aliou nga bind ko. ah loolu kay bind ko sëñ bi. Aliou taw bi. Mm-hmm. des na. Mm-hmm. taw bi ma waxoon te ne dana yéex tuuti. Mm-hmm. yàggatul tuuti. avant Tabaski wala après Tabaski na sotti ba nit ñi doyal. dëgg la tàmbali na. waxoon naa gox ba Touba. gis nañ ko waxoon naa Kaolack. waxoon naa Casamance. waxoon naa tuuti Dakar. Dakar nag aay na. Dakar aay na Aliou fan yi di nga dégg Dakar taw bu rëy boo xam ne. loo mës a gis. ville ba di inondé. ah loolu moom dina yéeme oto yi mënuñoo dem dikk loolu Aliou yaa ngi koy gis. Hmm. mu ngi ñëw léegi nawet bi nañ jóg. Uh-huh. inondation ren mooy gën a doy waar inondation yi ma ci àddina. Hmm. parce que dina dugg ci gox yu bëri ci inondation hmm. bokk na ci biir Dakar moom territoire bi ngeen gis gox yoo xam ne. mos a inondé ci Dakar ngeen gis muy inondé. Ah, loolu moom yéeme na di sëñ bi gox yi nga xam ne nag ñoo ci gën a loru dinaa ko tudd fii jëlal tey nga jël tuubaa Mm-hmm. ci lañ bokk Kaolack mm-hmm. ci lañu bokk dinañ loolu euh, Saint-Louis ci lañ bokk mm-hmm. Thiès ci lañ bokk ci lañ ci bokk maanaam at côté Diourbel ci lañ bokk wala jëlal nag côté bii nga jël euh, euh, Kaffrine ak yenn régions yi dëkk Saalum côté Saalum bi bu bëri inondation dana kon kay Sénégal gi yëpp la ah yii de moom yàlla wan na ma ko uh-huh. ci inondation yoo xam dana am nañ jóg ay mesures Mm-hmm. inondation bi ren di ngeen gis sax ay nit yoo xam dañ leen di ketal pour mm-hmm. dimbal leen gis ñoo xam ne nañ jógee seen biir gox yi leen mm-hmm. di tuxu yeneen gox di tuxu ndax gedd gi ñuy gedd quartier lëmm ñëpp daw génn dem tuxu feneen di geddaay lii moom jàpp leen ko bind leen ah la di sëñ bi ah Aliou manifestation yi ci àddina bi si manifestation yi Lamine Mouhamadou Lamine <laughs> waay nga jógee ko ci Lamine ñoo ñoo ma yi ci réew lan laa waxoon fan yee Lamine ma ne ko Lamine. Mhm. manifestation yi dafay jéggi Sénégal. Mhm. ana France loo fa gis fan yi waaw ña nga yaay des na. Mhm. xolal dafa des. France jël na walla Mexique. dugg na Mexique. dana fees dell nañ gis ay moor yu bëri Iran jëlal. Amérique jël leen. Ukraine jël leen. ah ba ci Afrique di Sud. Sénégal dana yënguwaat tuuti. Sénégal dana yënguwaat tuuti. am décision buy am. beneen. boo ne ci état ci maanaam nguur lay jóge ci nguur ba léegi. ah bu weexee nag moom wax dëgg yàlla da nga gis yëngatu tuuti mais tuuti lay yëngu rek tuuti. Mm-hmm. mu arrêté waat mais yëngu-yëngu bu am doole lay doon. Mm-hmm. la tey le cas de Tunisie. Mm-hmm. Maroc. Égypte Cameroun Mali. Mali moom léegi nga gis muy wax ak Guinée Bissau. Mali waaw yii moom ay yoo xam manifestation yoo xam ne dina feeñ ñi mu amee ca fi nga xam ne mooy mooy France. France Mexique. gox yi ma la tuddal yëpp. ba ci biir Afrique yi. dana bëri ay ñi nga xam ne dañu dañuy kii ay waay rey yi. Hmm. ray yi gis bu ñuy ray Europe. sénégalais yi. police la joteel ñuy daw ñu jàppante ñu téye ko li xewoon. Hmm. ba waaj a dee ci loxo. waaw ka tegoon tànk bi lo tànk bi loolu. Hmm. ay waay problème mu télé yi. waxoon naa ko. ay waay début année ma ne ñiy wax ci micro. ana Cheikh Sarr génnul fële. génn ñeneen ñu génnaat ci télé yi daw dem feneen. si lii mu wax Aliou bindal. loolu am na. gis naa ñuy génn ci télé di daw. Mm. gis naa déplacement. Mm. jógee seen TV di daw TFM. Mm. gis naa ñu jógee TFM nag moom réseau boobu moo ngi foofu. ñu bëri di nga jógee ci yeneen télé yi daw TFM. daw TFM lii moom di nga jël information ci benn kóor boo xam ne. Mm-hmm. di nga ko dégg fa yii du yàgg dara muy dem TFM di présenté. ñoo koy préparé loolu yàlla wan na ma ko télé yi góor ak jigéen yu bëri yuy daw di dugg TFM loolu moom yàlla wan na ma ko. viol yi ak yi di nga si gisaat di doy waar mal malfaiteurs yi kilifa. bu mag waxoon naa ko ah, kilifa gii de moom dama gis ne kilifa diine la moom coow dana ko topp de waaw waaw kii moom wax dëgg yàlla bi buñ koy sosol daal mais nag mbiru politique daal dama ko tey man xaw a gis at mbir moo xam ne ci côté waxam daal wax jum wax wax ci di indi ay wax yoo xam ne attaque dañuy am loolu gisaan naa ko conseil constitutionnel ay ay waay boobu da gis ñuñ téye gis ñuñ bàyyi ñu bëri ñu yaakaar ay candidat dañ leen di bloqué bloqué jëlal lii bindal bu mbir ma jotee ñi ngeen di gis parrainage yi ñu yaakaar ñu bari nañ bokk ñu si bari duñ bokk lii ma la Aliou jàppal nga bind loolu ma ne boo xoolee bu baax jigéen boo xam ne dafay ñàkk bakkanam kenn du xam ko rey ñuy dem ba ci enquête toujours muy muy feeñ di ngeen gis loolu jigéen boo xam ne day ñàkk bakkanam ñuy gis koor bi ci géej wala ci dara la ca topp mooy géej ga woo tàng na caaro yi malibu tée leen seen doom yi ren géej gi dina rey ay xale ba xale yi nañ tee xale yi bindal lii danañ xale ba ren euh, euh, vacances yii mooy ëpp ci lu muy rey ci ay xale eh ay xale yi ni leen tee wala ñu da leen garab ay gàllaaj pour ndox ndox mi dina jël ba doyal nu mu dalee noonu ci xale yi ci géej gi ci place yi noonu lay jëlee ci ndox mi bari na gaal yu bëri yoo xam ne danañ këpp ay waay nay nañ uur ñu bëri nañ këpp ñu ci réer am ñoo xam duñu leen gis loolu la nga gis ci weer bi ci at mi ndax lu war a loolu mooy géej gi ci période bi maanaam boo xoolee ngelaw dafa yëngu dafa yëngu nañ teey pêcheurs yi dem ci géej gi nañ teey tuuti parce que jamono ji ñu toll nii wax dëgg neex yàlla li ma gis képp koo xam ne yaa ngi dugg ci ndox utal ay ñaan yu dëgër pour mën ko def wala ngay xale bu dem ci place na nga tey boobu sa bakkan na si des foofu laa accident yi waxoon naa ko xole yi am avant tabaski ma waxoon beneen a ngi ñëw bu doy waar mais bii nag deux morts lay am deux morts lay am na ci yu sew sewaan yi am ci yenn dëkk yi da ko gis prison yi di nga gis gan gu baax kooku la muy génn am kenn nañ ko gracier kooku danañ ko gis mu génn lu gën ko rafet ni ñuy jàppee di dugal noonu la ñuy jàppee di génn di nga gis si weer bi ñu bëri ñuy génn ci prison loolu maa la ko may jëlal da ngay gis ñu bees ñuy duggaat ñii dañuy dugg ñii di génn yàlla yàlla dimbal leen génne leen ci prison ba lu doy waar ni ku siiw kuy gën àdduna ay waay bu amee ñëpp danañ danañ danañ danañ jaaxle parce que koo xam ne la woon da doon servir réeram réew moo xam la beneen boo xam ne mu ngi mu ngi am boo xoolee ci kaw maanaam dund gi dafa am yaakaar goo xam ne maanaam nit ñeen ko doon am ci benn homme politique du bokk dina bokk homme bi du bokk dana bokk ñëpp naan du bokk du bokk ñuy laam-laamee dana bokk du bokk ay waay Aliou dangay xëy rek ñu ne homme dina bokk ci élection yi ñu bëri danañ tàccu loolu séntu leen ko la cay tëjee nag te ma koy tëjee mooy di ngeen gis du yàgg dara dara koo xam ne ku nit ñi xam ne muy kilifa gu mag ci réew mii kilifa gu mag muy gën àddina euh, di ñaan yàlla yàlla defal ñu suuraak biir ak biti nu yàlla yëkkatee asana asamaanam si yàlla na ko yëkkatee Sénégal li ñuy wax nag dañ ko wax ngir kaaraange ak matuwaay pour nit ñi faggu waxuñ ko ngir leneen parce que Sénégal lañ bëgg te li ñuy wax ku fekk bëgg nga loolu bañ la dal ool as brama mu jox la ay mesure ak ay musluwaay yoo xam boo koy def yàlla na la muccal maa ngi ñaan yàlla réew mi raw ci réew yëpp ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu sutura ak teraanga wasalaamaaleykum wax rahmatulah taala wa barakatu